bismillahi may jéema bakk sawa ala jiba ndaw mooy nandal bikiisa famdan wa sukuran warna gaay booba ala jiba ndaw mooy nandal bikiisa tax ndeysaanam ñi koy woy naan alaaji baabu ndaw mooy jàmbaar te moo dendaanaan leeram ga jolli na ku ca marka ñu dem naani alaaji baabu ndaw coy mooy jàmbaar te moo dendaanaan leeram ga jolli na ku ca marka te moo di ndaanaan leeram ga julli nañ naa ni hamdan wa sukuran war na gaayi baba alaaji baabu ndaw mooy nandal bi kiisaali alaaji baabu ndaw coy te moo di ndaanaan xaadimul yatiim alhaaji baabu raw coy se moo de ndaanaan leeram ko jolli nooy naani yaa man yuriidu ji naanal qulti yaskunu qul kawlu laayi mooy xaadimul yatiim alhaaji baabu raw coy se moo de Mor Diané ku mu jàngal nga raw ci sag maas Alaaji Mor Diané ku mu jàngal nga raw ci sag maas Alaaji Mor Diané ku mu jàngal nga raw ci sag maas Alaaji Babu Ndaw raw na gaay yi xam ngeen Alaaji Babu Ndaw jooy barke nga dem naa li ci soppu Yonent ci la ci ay xaas ci soppu Yonent ci la rawe ci ay xaas tuddee moo soppoon Yonent bi Alaaji Baaba Law coy sang ñu lay nañ ko daal fekkee ko ren yàlla nañ ko fekkee ay mu mel ni tey rek la àllarba alarba ji nga xam ne moom fu alarba xel dem maara macha allah heure bi ñi ngi daan taxaw fii saret yi taxaw mhm. ñi njëkkante ñi yor ay welo ñi di dox mhm. tey nag macha allah macha allah ñëpp gis nañ li fi xew mhm. oto yëpp mag yaa ngi taxaw oto yu ndaw yaa ngi taxaw fa tabarakallah muy wane ne lii ak yokkute la mu bëggoon la laaj rek yow balaa ñuy départ yow noo gisee bés bi ak loo ñu siy sànni daam dañuy sant yàlla bu baax mi ngi may ñu fekkee at bis man ñi ñu ne feetee koom la depuis daaw li fi jaar ci ay programme ak i ndog i xew-xew bëri kon fekkee gi ñu fekkee xat bis bi la yokkute la koom la biñ ko fekkee yàlla may ñu man-man ak kattan ak wér loolu dolleeku la yàlla mayaat ñu buñ daan demee ñaari oto ren ñu war a demee lu mat daanaka juróomi oto loolu sant yàlla la wax nga ko ci gannaaw benn oto daan xam avant oto bi xam sax ay saret ñoo fi daan jógee di dem Mara mhm. ñu dem ba jamono mhm. mbaar di fi jógee di dem ba Mara mhm. ñu dem ba jamono benn minicar di jógee fi di dem Mara bu ñëwaan da ngay gis na xale yi sax dañu am triste ndax bëgg dem doo mën a dem mag sax dana am ñu bëgg dem duñ mën a dem mais xam nga ne yokkute la lu mat juróomi oto mhm. war a mën a dem fële maara mhm. ak ay moto loolu sant yàlla la mhm. sant yàlla la waaye di ñaanal sëriñ bi ñuy yàlla boole nga xam ne mooy alaaji alaaji oustaz Babacar Ndaw i mosiid alaaji Baba Ndaw xaadimu rohil ak sam nga xam ne xànd ak moom kaaraange la xànd ak moom yokkute la ñaanal ko yàlla mu yàggaa taxawee bis bii ko taxawee ci wér ak kartan ci barke bi yàlla moo xam la ñaanal yow it Ahmad Dame Top Top production ñaanal yàlla yokk sa man man yokk sa kartan defal la faju gaajo sa ajra ba la jërëjëf ñaan yàlla ñu teewee ko ay xat yu bi yonent yàlla moo sallallahu alayhi wa sallam jazakumullahu na mm. jërëjëf ndaw Cheikh Abdoul Karim Cissé euh, di kenn ci waa kër gi di sët ci góor gi fa tabarakallah moom tamit bokk na ci ñi nga xam ne ñi ngi pare pour dem ci bés bu neex bi Cheikh Abdoul Karim yow loo ñuy wax tey ci bés bi ak noo ko dundee ak ni nga ko daan gisee bu yàgg ak ren noo ko gisee. waaw bés bi de wax dëgg yàlla ginnaaw bi ñu sant yàlla ñu ngi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. di gërëm suñuy sang di suñuy sëriñ te xam ne bés bi moom olof li may wax ne lu yokk rek ñu wàññeeku. gis nañ ne bés bi yokk rek lañ ci gis. Mm-hmm. ndax fii lañ daan taxaw ci ay sareti fas. Mm-hmm. ñu dugg ci comme ni ko waxee sànq. wala ñi fi daan taxaw ci ay oto yu mbaar. tey bu ñu demee ba xam ne. oto yooyu tey daanaka li ci ëpp yëpp tey oto yu waa kër gi lañ. ñuy dem ci ay kaar ci ay oto yu ndaw. yoo xam ne yëpp liggéeyu waa kër kon dañuy xam ne bis yi amul tànk ginnaaw. te bis la boo xam ne dafay wax ne mooy. gannaaw siyaare Medina Salaam mooy taawu bis yëpp nag mooy seen sang mooy seen mooy seen taaw kon daal wax dëgg yàlla ñu ngi xam ne yaakaar na rek yokkute dina gën a am ci kanam incha allahu taala waaye ñu ngi ñaanit yow mi nga xam ne tabaarakallaahu ah gis nañ ne tabaarakallaahu bu gàmmo jotaan fu nekk dañ fa jëli ay caméraman mm-hmm. fay ci xaalis bu bari dem alal ju bari waaye bi nga xamante ni yàlla tàggat na la yow mii baaxee la nga am métier mi jël say matériel heure bu nekk ngay jël say caméra jënd say bagage ñëw fii di ko daggee ci ziar Medina Salaam ba tournée yi jeex nga di ko def ci toppoo ci kenn benn dërëm ci lépp yaa ngi koy def ngir tasaare sa liggéeyu sëriñ kon yow it dañ lay ñaanal yàlla barkeel la barkeel sa njaboot waaye dem ba nga xam ne dina la jural télévision boo xam bu ëllëgee da nga koy samp fii ci madinatu salaam waaye samp ko ca fa nga xam ne fa nga nekk mooy ndakaaru muy loo xam ne lu lay jëriñ la di jëriñ askan wi yëpp di kontaan loolu macha allah jërëjëf jërëjëf jazakumullah na xeyran jërëjëf Cissé jërëjëf jërëjëf kàddu kon ba ñu Cheikh Abdou Salam di kenn tamit ci gi fa tabarakallah mu ci ñi nga tamit wax at bu jot ku ko gis ci kanam bi ko gis ci wetam mu ak ci tabaarakallaa yàlla dogal nag tey mooy maara ñi ngi fas yéene dem yaakaar naa ne dem bi am na nu mu daan tëddee ah fa tabaarakallaa bu bëggoon a laaj rek yow ren noo gisee dem bi. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. toog ñu ngi lay nuyu di la siyaara. sant yàlla nag bu baax. ndax sama borom moo ne bu ñu ko sant mu dolli ñu. Mhm. waaye ñu ngi koy sant ci tiraange yi ñu def lépp gis nañu. Mhm. boo mhm. xamee ne. daan nañ demee ay saret ak dox. fu ne macha allah. alhamdulilah. Mm-hmm, mm-hmm. ñu ngi ñaan yàlla mu dollee ko. amiin amiin ñu ngi ñaan yàlla sëriñ bi yàlla yàggal ko fi lool. amiin amiin yëpp ñaanam la. dëgg la ak ñaanu Seydi Alhaji Babou Ndaw sama góor ko ñu ngi ñaan yàlla yow itam. ngay uh-huh. dem bay dugg ay avion. amiin yaa rabbal di caméra yi. amiin yaa rabbal di dem ba macha allah. amiin amiin yaa rabbal yàlla xam na ko mën na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla defal. allahumma amiin yaa rabbi jazakumullah allah xayran waaw ok waaw sëñ bi de xam naa ne ñu ngi waaj a départ waaw kii mooy Cheikh Mouhamed Abdoul Hakim Ndaw moom tamit di doom ci góor gi xam naa ne oto yaa ngi taxaw war a départ sant rek mun na yàlla dem si jàmm amiin si jàmm ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam amiin ñu ngi lay sant Daan alaaji Ba bu ndaw mooy te moo di ndaana leeram nga jolli na ku ca maka ñu dem na bismillahi may jéema bàkk sawa alaaji baabu ndaw mooy nandal bikiisa famdan wa sukuran war na gaay booba alaaji baabu ndaw nandal bikiisa ndeysaanam ñi koy woy naan alaaji baabu ndaw mooy jàmbaar te moo dendanaan leeram ga jolli na ku ca marka dem naane alaaji baabu ndaw coy mooy jàmbaar te moo dendanaan leeram ga jolli na ku ca marka dem naane bismillaahi may jéema baak saawaan yononu be Alaaji Baaba Ndaw may jambar te moo di ndaanaan leeram nga julli naay naani hamdan wa sukuran war ah. na gaayi baba Alaaji Baabu Ndaw mooy nandal bi kiisaali Alaaji Baabu Ndaw coy se moo di jonaani ya haaji baabu ndaw ya ibnu mampate ndaw ya ibnu bode jane xaadimul yatime alhaaji baabu ndaw coy semoode ndaanaan leerama ko jollinoy يا من يريد جي نان القلت يسكن قل كان لايم قادم اليتيم على محمد رسول الله لا اله الا الله عددا لا اله لا إله إلا الله حدد علم لا إله إلا الله حدد علم لا لا إله إلا الله حدد علم لا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله حدد علم لا محمد رسول الله لا إله إلا الله عدد علمه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله عدد علمه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله عدد علمه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله عدد الملايين لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله عدد الملايين لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله عدد الملايين لا اله الا الله محمد رسول الله مم الفاتمة خلق الخاتمة سبقنا زبرة إلى أسرارك المستقيمة